يا خير ضيف أتى بالبر والمنادي هلا وسهلا الوعدا هبا بلا عداد bis boobu mu taalee jant bi fi njëkk a dal ay jinne la fekk dañoo tiit daal daw bi daw leer gi di leen jant bi di takk di takk di takk ba daj kàppu àdduna dina yi xam ne lii mu mbugal waaye xéewal la ñu sant ci yàlla bis boobu dañuy wax ne bisu leen xadr la tombeel jinne yi daa def waxtaan yu dellu see ñu di ko sant yàlla di ko ca jàmm ginnaaw loolu itam ñi nga xam ne àdduna soxla lu yàgg ay yonent jaar fi am ci yonent yi bane Israël buur bu baax boo ne pour la woon koo xam la du téeméeri at waaye mujj dundam bi mu fukki at ak la tàmbali guddi gi daf koy woor daf koy daf koy fanaanee naafile guddi gi bëccëg gi da koy woor di jihaad ak a ñu teg ñetti weer daal faatoo bi mu faatoo nag suñu borom daal di daal di gërëm lool ak dundam ni kii day dund bu baax la dund ndax dundam gi di juróom-ñetti fukki at yi ñetti weer guddi yëpp daf ko naafile bëccëg yëpp daf koo woor kii dundam gi gërëm naa ko lool nettali ko yonent bi yonent bi dem xemmeem lool dund bu mel noonu. yonent bi ba tey nettali ko saxaaba yi saxaaba yi ñeewaa ji lool ci dund bu tedd boobu waaye sunu borom nag ni mu bëggee yonent bi ak ni mu bëggee aw xeetam mu ne leen dinaa leen may dund bu waa jooju lu gudd lu mu yàgg yàgg dinaa leen ko may jigéen ñi guddi mooy guddi Laylatul Qadr nga xam ne kundal guddi gi mel nga ne ku jaamu yàlla juróom-ñett fukki at yu dox tam ñetti weer loolu mooy xayrun min alfi shahr waaye ku mel noonu ni suñu borom defalee suñ Tuubaa xéwal dafa koo fay ci maamam ji nga xam ne moo jur yaayam maanaam yaay yi soxna Jaaratullaa soxna Sawalo soxna Sawalo dund na téeméeri at ak fanweer bul fan la téeméeri at ak fanweer bi mu amee fanweeri at la tàmbuli gu jóg mun naa fee téeméeri rakka jàngi ci loolu def na ko diiru téeméeri at pour soxna sa wàll ci biir loolu dina sunu borom nag may jullit ñi bu tedd gi guddi ngëneel la guddi kaw waaye nag am leneen tamit lu ma mooy bis mu tombeel ci weer wi ñu nekk weeru nañ wi waaye dem ak ¿ah? fan yi mu tombeel dem ba tey ci weer wi loolu du yéeme la ndax suñu tubaab sama borom damaa may sama guddi gu ne déwén ak laylatul xadar ci man loolu yàlla defaloon su ko moom bi set laylatul xadar la woon ci moom bis bu set. nga xam ne guddi gu ne bu ko jaamoo yàlla moom sëñ bi dafa tolloog jaamoo yàlla juróom waaye bisu tey bii ma tombee di àjjuma tolloog fukki xel ak juróom-ñaar bis ni tey de sëñ Tuubaa woote woon murit ni ku tey jii ci weer wii ak ci limu fan yi la toogoon ci Mbàkke Kajoor ne yonent bi dikkal na ma nee ma la ne woon ci moom mi sama loxo bii tey ana koy àndal ma ci ci namu yàlla ñu ci la woon bis bu bis bu tawfeexe la bis bu am ngëneel la suñu borom nag defal nañ ci tawfeex ci mbaaxam gi ak yërmandeem ji ñu àndandoo di ko dundal di def ay bernde yaa ngay xasida loolu lu rëy rëy la loo xam ne lu mot a sant yàlla la ku ko teewee war nga cee sant yàlla baax a baax a baax a baax waxtaan bi du gudd lool nga jëm rek ci Sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa xam ne moo ñu boole njaboot ñun ñëpp ko war di waxtaanee Sëñ ko war di waxtaanee lool waxtaanee bés na waxtaanee bu ñu ñu koy waxtaane sax xamuñu ko kon bu nekk dañ koo war di jukki ak dundam ca waxtaan di ak cofeel Sëñ Tuubaa jëmm ji ni mu meloon Sëñ Tuubaa nit la woon koo xam ne ku mas doxandool ci jéego moo lay jiitu ku mës a taxawalandoole masalan ngeen ànd di taxaw wala ngeen ànd di dox loo njool njool moo desul suñu père defaloon li ko suñu borom bindee suñu tubaab di xam ne dafa amoon yéen amoon yéen lool boo jàkkaarloo moom itam bu kàllawuwut day mel ne xar kanam bi yëpp ay bët la dafa amoon bët lool ni si sa papa noonu la léeg day bàyyi xale gi xale gi kaw nii rek waaye bu lay xool day mel ci moom na day mel ni ab lamb dafa tàkk jëm bu ma sànni ree ree gaaw gudd lool waaye da gis bëj yi bëj yi day mel ni am ay xaj-xaj. noonu la meloon doonoon ku am sikkim sikkim bi rafetoon lool laataa muy dem ci géej gi moom sëriñ bi buy kaalawu day kaalawul ni seen bakkan kaalawoo day day takk bopp bi ngi rek waaye dawul dawul fi dolli lee loolu laataa muy dem ci géej gi la fa def waaye ginnaaw bi mu jógee ci géej gi nañ gis muy jël ñetti kaala jëndil benn kaala wàcceeg jëlaat beneen jëlaat benn ba nga jàpp da koy lemandoo indi ko nii ci ndeyjoor bi loolu ginnaaw bi jur gi dafa tàmbalee mooy mooy nee ma kaala woo nekk loolu Cheikh Fall la ko suñu Fall laaj suñu Fall la xoolaaj na ko Cheikh Ibra suñu tubaab lu ngeen seetlu ci moom mu soppi ko moom ginnaaw bi mu jugee ci géej gi Cheikh Ibra ko xanaa leen ne seetlu naa ko ci moom daal bi toog jàppanteeg moom ba lenn laa gis mu soppiku ci moom mooy kaala gi da ko gën a jëkkalaat day seetloo dèjà bi toog toog bi song moom ba àggal daal du gën a jëkkal gaal gi day seetloo noonu la ni doon koo xam ne bu la nuyoo loxo bi day fes dell sab loxo bu lay ñaanalit suñ tuba bu lay ñaanal fu lool muy dal rek bu dee ci bopp foofu la foofu la dul sax karaw loolu la meloon mas naa sax Sidi Muxtaar sax Sidi Muxtaar sax Sidi loolu loolu topp na ko ba ñu nekkee mag nopp yi léegi bu baax loolu suñu doon defoon ci moom la sax léeg nit bu sëñ bi ñaanalee xam ko ñaanal mos a ba suñu doon daf koo ñaanal ba sànni ko or lor a nee na may njëkkal lor bi waaye nee na bi loolu dalee sama dalee ci sama loxo bi ni mel nii dañu dañu fàttali ñu ci loolu. Seexul Bamba jëmm loolu joo xam ne lu mu wax nit dootu ko fàtte loolu la def ko dootoo ko mën a baax bu xasal ni la màggal sànq bi sëñ bi laa dund na téeméeri at ak ñeent bi ko suñu tubaab dalal jàngal di dalal jàng nee damaa toog yëgal sama benn tànk bi mu jël xarit ba gi doon ko ci ne ma ne ma ban sànq bi. waaye nee na keroog laa ko noppee yëkkati dañu ma toog fu mu toll rek tànk bi mu mu tudd da koy banque rek mag ñi ko xam ne naa wax ne sëñ bi da lay digal dugal lay seet lu mu la xas digal lu mu la xas digal rek doo ko mën a baat loolu suñu borom defaloon suñu tool yi ñu doon joxoon ne su masaan di dox li feeg li ngi dox ngelaw li du jóg. loolu lu kii maan la woon ci moom ji duur diiru ñuy dox rek doo gis mukk jàlli mbeer ngelaw lu bàyyi du contre ko déedéet déedéet lu ndaw la di waxtaan itam diiru li muy waxtaan picc yi lépp dañuy taxaw dal moo ma koo bàyyi picc mooy naaw doog a naaw picc mu naaw bàyyi ne fa muy waxtaanee dañuy gis day day dal boo waxtaan wa jeex ku ma ne la te ma ne la waaye ay jikkoom itam suñu tubaab ku rafet jikko la rafet jikko la woon te baaxoon te mënoon a muñ lool te tabe mën a muñ gi àggoon na foo xam ne foo ko fekk desoon lu waxtaan la daal di sawar lool féex lool. waaye ñun sa sawar teewul ñi koy xam dañuy xam ni dañuy xam ci moom ne fu mu toll mi ngi woyaale ñetti feebar mu gàtt gàtt bu wéree ba wér rek ñetti tawat mi ngi ci moom yaram bi ak sedd ci ne woon sedd bi nag ko daan sonal sonal sonal ba daanaka daawul xaw ma lan ndox te teewul waxtu bi yëpp doo koy jàpp si saa yu nga la gërëm si saa yu nga xam ne dafa mu jël sa bàyyi jàpp moom si saa dina am ndox mu dugg yow nga nga tiim loolu ku ku ko benn xam ci moom sëriñ bi seetu euh, benn noonu la ci kër nii ñàkk gi daal ñàkk gestu tax na yoo xam bii mënut mënut a wëlbati ko loolu cee feebar la bokkoon foo ko mos a ne fekk itam ñaareel bi nga fab taab buy nekk ak moom léeg-léeg itam am na kiis bu gën a dikkal moom sëriñ bi. bu mel ni kenn xamul noonu dañuy dégg rek ci dal daan ci naaj wi fële yi ne ne fa ne fa boo waxtu julli bu ñu noddee dañuy gis mu ne nii dañ indi ko mu jàpp dem jiite bu xasee bu sëlmalee euh, daan waat te lu lu lu pratiquer la ci ay xeeti wér ana loolu lépp fu suñu borom ne danaa mbugal jaam ñi tey wala dinaa teg màngam seen kaw mu ne suñu borom bàyyi bàyyi mu dégg ko. entreprise boo xam ne dañ ko indi ñaari nit ko moom sëriñ bi suñu ne ah, jox day dañoo war a faatoo bis bi tey ñu ne waaw ah, sama borom loolu day dina ma tiis ndax ñoom ñii seen i wàllu dañ ma ciy wóor lool te yàgguñu li buñ toogee dégg ñu ne amul lenn lu wees rek am nañ sama kër gi ñaari man faatoo loolu dina ma diis lool. suñu borom ne ko ah ñoom de def nañ loo xam ne tey jii laa war a jël seen bakkan waaye nag bu la neexee ma jaay la ko suñu lëb loo ma ko day bëgg a taw ak kaw mi ba nga toog fa ba taw bi lépp sotti ko sa kaw ba loolu laa la ko jaayee te loolu si laa jënd na ko fekk moom gan mu génn ku nga gan gi bi dëppaatee mu xiin. ñu gis ndeysaan mu sol bàll yi dem ci ëtt ba ba ni ndox mi wàccee ba si ba jeex mu doog a jógee fa mu newoon daa dugg si biir bi mu duggee la am benn dënnu bu bu daal ci biir daara ji waaye waaye gaañu gaañu fa kenn gaañu fa kenn bi nga xamee ne liggéeyal na boromam ci baax gi mu baaxoon ni mu baaxee waxum seen bi ak ni ma doon a jégalee bi mu liggéeyalee boromam ci tukki bi ba noppi. suñu bët daf ko wax ne ko loi bi teg nañ la ay natt yu bari léegi nag tubaab yaa noonu loo ci wax rek ñu wéyal loola suñu borom yàgg naa jox ko wax ne ko suuf saa ngi nii loo ko digal mu def ko kooku baax la woon ne ah suuf si na wan sama noon bii si daf koy wan na ci saa si. kon waxoon suñu bopp koo waxoon ne ko ngelaw li yow di diglu bi mu joxee ndigal ngelaw la dañu gis ngelaw day ñëw ba es ci nit ñi ba mu ba mu kawe ak dagg liggéey am na yoon bu mbuuree noonu ah, rek laa ci diglu rek am ñaari montagne yu yoo xam ne saa yu la soobee ma boole ko seen kaw loo ci wax la mën ko weer nee na suñu borom ne ko nee na ko loolu day sant naa la ji gërëm naa la ci itam waaye xam naa ne tubaab yi duñ doy doy waar binduñu seen bopp yaayam bind te seen bopp yaayam bind te yow day doo bind dara man na di ko xool di nga def ak yàq kon yëgal naa leen mais bi ma waxee ne ma da ngay baax ne maa la gën a baax ndax man maa bind baax da baax waaye li xam ne man maa la man maa la gën a baax ndax man maa bind baax da wax ne roob yi wàcc na ci ñun téeméeri yonent yonent yi jox naa leen téeméeri téere téeméeri téere yëpp may naa ko loolu loolu wax ci lay kaw waxoon ne ko wax na yéen ay may ñëw nga waxoon ne ko wax na ko ci ne ko ñoom ñii kat amoon nañu ay gën ci àjjana te yëpp jot naa la ko suñu borom fayal la fajaloo loolu ku ku ku tabe ku tabe la woon koo xam ne euh, bi mu fi jógee moom sëriñ bi li waa këram yu doon ci moom mooy ñetti weeram yu mujj ñetti weer yu mujj yi la tëju ba ngeen gisatu ko at yii yi soo daan ñëw ñu ko daan ngir xaar mu génn diggante bi génnu fi ñetteel yu mujj yooyu la waa këram yi am fi moom ndono waaye li ko jiitu lépp day joxe joxe joxe bu ko ñaanee am xar gis lay may léeg-léeg sax kaba gi daa baax boo xam ne dafa am ay naar yu ko bindal ak kaamil ñëw na ko dañ ne koy jaay kaamil bi su tubaab leen ma koy jaayee naa leen di jiital su tubaab leen kamil bi jëndee naa ko àjjana Firdawsi loolu la gën ah, ndax mën naa jàkkaar bi léegi su ñu ko la soobee su ñu naan ko laa da dal sedd sa sànni gi sax ak tamum foofu la nekkoon loolu dañ ko war di xam fi mu àggoon ci bëgg réew mi ni mu bëggee woon Sénégal ak ni mu bëggee woon Sénégalais yi dana bëggoon lool. jamono bu nekk muy wane ni mu doonee ab Sénégalais moom suñ bi ay maamam ay tukulóor lañu woon teewul xam nga tukulóor ak séeréer ay kal lañ teewul léegi daanaka kale séeréer lañ leen doon loolu la lekk ngir bëgg a wane ne ci ci ci ñii la bokk si Mbàkke Bousso doomi nijaayam la woon wolof dafa baaxoo tooñante digg doomi nijaay doomi bàjjan diwul daana tooñ si bàkki bu sow ndax daana kal ak moom waaye kal gam da ko mujjee bàyyi ndax daa mujj moom bu lay kal lim lay bu lay lu mu wax mu dal la daa gis sax ku ñu wax Moustapha Bousso xëy si ba di ko nuyu di mel ne sama yaram daana xari mu ko am ah, da damay damaa si góor daal bii nii ñaa ngi wér di mu noppi mel ne dara jotu la di di di de bu doon mbàkk bu soo woon doo xam du fa naanee mbàkk bu soo leen guddi woon xamul doo fa naanee am na am turist boo xam ne dafa defar am xar baagal daal ne eh tey tey xam naa ne bu su bu su yi ñëpp danañ xër waaye ñoom ñëpp xër de suñu seex boo ko def nee na guddi keroog nee na man xër naa suñu seex bu su suñu sàmm kañ bi bu su ñu bëri xaaj mu si bëri demul naan ko rek booy calcul daal man booy wax dëgg ba fi loolu si bëgg wax waaye bu ñu seetloo moom si Touba photom bi photom bu weex bi nga xam ne moom la gën a xam bu ngeen ko seetloo bu baax ne photo bi ni solo ba ci dàll yi. dañ ciy gis ne jëmm ji toobeewul jëmm ji naareewul monsieur le maire boo leen xoolee xolam ba mu jeex dara la toobe ñëwul ci moom waaye dara lu naare ñëwul ci moom leen daal li ñuy seetlu mooy dàll yi daal yow daal daal ku ne la Aboubacar Gueye moo ko ko daa ràmpal dàll mu sol bu nga gisee ba waxtaanee ci nii dama bëgg ñu mën koo roy suñu fas laa wax ne jëmm lu mu la gën gën teewul nga sañ koo roy lu ñu Sëñ Tuubaa rek sañ nañ koo roy ci xeeti jikko yooyu bu njëkk bi mooy ni fonki woon boppam nawlawul ab tubaab nawlawul ab naar déedéet waaye ñun daa mel ni moom loolu ñoom jàmm nañu dañoo mën a tubaab loolu ñu ko bàyyee ndax képp tubaab yi nit ci góorgóorlu di jéem koo baax du dara ku amoon nañ ko wàññi bu baax di wut ay bayra wut ay bay champs yi ko ñu sol te bàyyi dëkk tubaab yi ndax ñun muy di xeet kër yi am dañ jéem taw feex donc dañ jéem taw feex loolu. sëñ la nee na bàyyi laat bi suñu borom ismullahi al azam moom la ñu defal daanaka bu ko dëkkee sol da jub ba bàyyi laat daanaka bu ko dëkkee sol bu yàggee def yoo ak jub loolu mu gën ay jiin ak jëfam dañ bàyyi xeet col yooyu tey sol sol lu murit waxtu bu ne guddi ak bëccëg te waxtu waxtu dara dara tubaab tubaab jënd loolu suñu tubaab àggoon na ci bañ tubaab foo xam ne. benn bis ñu jënd biscuit doon ko jox ñoom suñu saa yi boo ba si bi gisee paquet bi ay bii di toog nga jël wax ne nañu bàyyi jox biscuit da jox mu raakee nañu bàyyi jox biscuit da jox mu raakee toog yi àdduna rek moo ñu boole ak ñoom seen xam-xam àdduna boobu mën nañu ko jël bu ñu ko soxlaa waaye seen toogaat seen melo ak seen jikko ja na nañ ko tegg te nere loolu murit nag lu ay murit waaw lu ay murit loolu na ci ñëpp góorgóorlu ñëpp ko dul wàcc sa du toog tey muñ itam adduna faw ngi muñ ku ku muñut doo muñ adduna ku muñut doo taxawal dara faw nga muñ si nangoo sonn faw nga muñ si nangoo jox saalal faw nga muñ itam ci àll jàmbur doo ko laal doo ko jege ak lu mu bari bari lu mu la jege-jege rek na muñ ci mooy tax bu ëllëgee nga mën a mooy bu rafet bu ngeen muñut ci at yi ngeen toll nangoo sonn nangoo teel a nangoo ne ci daayira yi nangoo ne ci yàlla nangoo liggéey bu ngeen bu ngeen ko defut diir bii ngeen nekk nii day weesu si kanam rek te ngeen muñ luur seen bakkan bu leen ñaanal tey tam. nit mën naa am jikko nit façon jikko bu ne mën naa ne ci moom ay mbiram di dox am na si ñaan nit mën naa nit mën naa reew teewul teewul li mu bëgg mu koy am waaye bu xasee ñaan li mu bëgg mu lu ko bu ñu ñaan ñaan mooy nit am lu baax soxla bi neexu ci loolu la ñaan nañu yàlla nañu ci yàlla baaxul ñaan baaxul. yàlla da koy bindee nit loolu day am benn bind ci nit loolu day am waaye bu ko yëg ci xolam rek bu bu yëngoo rek da ngay wax ak moom ne waaw ah, waaye lii yàlla defal kii da nga koy da nga koy ñaane soo waxee sa xol rek day day mujj day nit ci góorgóorlu yan yan dara lay am di leen ko yar bu ñu ñaan ko yàlla bindee lu waaye am rek na sax sàpp ci suñu xol neex ci lool na nga mën a dem ci tabe ci tabe tabe nag bu caagee ne da ngay joxe sa alal rek. nit bu ñëwee laaj la sax dootu ne amoo xaalis boo ko jox am nga wax ju neex joo ko jox wax ju neex kenn ko ko wolof nee na wax ju neex sax sarax la loolu la ci di boote te bañ ko ñu boot loolu mooy li ñu góorgóorlu ci buñ nang kenn du ko ñu yóbbaale loolu am murit wërta siiwoo wala muy noosoo dépense bu jàmbur loolu bàyyi leen di noosoo dépense bu nekk si ceeb jàmbur dépense bu di ca kaas ak a wax loolu mën a nekk bàyyi leen itam di mel nit ci àll day gis kuy mel ni jaayam baa muy mel magam ci dama defalu bu la defalu ci àllam na moom moom bi bu bu leen di kaas ko leen dimbaliwul

ku la defalu ci xamal ba am loo ko doy ba defalu la waaye ba lu mel kenn na caa fu ngeen nekk itam dee leen dee leen joxe ka bañ a xaar ku leen di jox ak ku leen di demee Touba da ngeen gis ne kër yi Touba kër yi day rëy ku kër yi rëy kër yi fees te kenn nii la ko yor da da yor jiitu jiitu fukki at wala ñaar fukki du ko jàmbat. loolu loolu danañ dimbali ba nga xam ne day mujj faj aajo danañ jël jóg àdduna boo bootee nit ñi yor leen boo bootee nit ñi yor leen yàlla ci boppam moo la yor boppam kon bu leen di xaar ndimbal ci kenn dina xaar ndimbal ci yàlla dana ko sonn lu ngeen sonn rek dinañ xaar lu ko raw àdduna ak yow bi dama lay ñëw fii ngeen bëgg bu baax jéem a xam seen Tuubaa kooku lu ma xam la góorgóorlu bu baax jéem a xam ji nga ji. lii dañ ko war a xam góorgóorlu dem jéem a xam ngor gi ndax ku góor yi du dara maa ngi sant bu baax maa ngi gërëm na mbégte lool waxtu bi dafa sori waaye sama wax na lool ci taxawaay bi loolu lay góorgóorlu bu baax ci liggéey bi ndax lii kat man bett na ma lool bi nga xamante ne suñu daan boo na ma ne ah man daal béy ma fomm moo fomm mu tax daal. nit ñi mel ne jàpp naa lu yàgg la waaye comme comme waxal ma daal naa dem rek bi mu ñëwee ba gis bii kawe na ci man jof lool ndax bis bi dafa bettee waaye nii la li ñu ci xamee mooy am murit dara nekkul ci loxoom am moom dañu ko sant mooy tàmbali rek am murit moom nga bëgg nga yéene am murit ñaar yooyu la am bëggal yéeneel jugal jëm ci rek. li nga xam ne mooy moo moo la ci dimbali boppam ci wet yëpp nag fépp fépp fu ngeen bëgg a àgg ci lu baax rek na ngeen am fi ñu bëgg ko ndax bëgg fit la bëgg bëgg lu baax fit moo koy def baax bu toll nii tant bu toll nii danaa fexe ba day rek weesu fii bëgg loolu loolu aw fi da koy def waaye boo bëggee ba noppi nag jom moo la yëkkati ci ngir jëm ca loola bu sa jom xasee jóg bëgg gi am rek suñu wàcc boppam moo lay gàttandu dimbali la boppam dimbali la boppam bu baax loolu taxaw xale yi ba xale yi ñuy ëllëg yoon bi xale yi ñuy ëllëg yoon bi soxna yi sant naa bu baax waxuma seet na lool naa bu baax waxuma seet na lool dama ñaan yàlla mu def fi barke def fi xéewal def fi mucc def fi ak wér def fi ak yokkute biir ak ci biti maa ngi leen di ban ma ci xam ba ma xayma sa baax waxuma seet na lool salaamaaleykum